vizinha, né?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 coow yow jógal naaj bi tàng na ngay tuutu di wangeetu rek ax bi Aziz ñëwati nga bajat wax naa la bàyyi ma ba taay bu may nelaw nga ñëw fekk ma di ma yee ni ngay def ba ma soog la fee ñëw fi di wax ay affaire yooyu noonu wala sama sulox mbolox fi ñëw fi ma bett la fi yow ku réew nga yow ku yabaate nga yow la moo tax nga xamadi man dama nekk sa morom bajat demal sa néegu mag nga bàyyi mag ak sama néegu xale ok nga génn ci man tranquille man dama li tax nga yakku jaxal na ma non man mo wuy sam appel te na nopi ba jël nopi nga tek sa gémmañ mo wuy sam appel allo Wow, ça va ah non da nga juum da nga juum. ah ok 500000 wax ngeen dëgg waaw moom la yàllaay kase jërë ngeen ñëpp yàllaay kase alhamdulilah alhamdulilah yàllaay kase jërë ngeen ñëpp waaw waaw waaw waaw ndeysaan ndeysaan waaw waay waay waay jërë ngeen ñëpp. waaw léegi da ngay bàyyi alxamis ca ngoon incha allah waaw bu ko defee nga ñëw nga wuy si ma. jërë ngeen jëf. waaw kay <laughs> yàlla kay. Eh, eh, eh, yow lan moo lan lan la changé lan moo tax léegi nga mel yow benn affaire rek laa la mën a ñaan est-ce ma ko may. féex bu ma ko mën nga di génn ci samay problème wala mënoo di génn samay problème wala yow yaay ki nga xam ne ni da nga am sa problème moo réglé la problème ba dootoo di problème bii bii doo problème di rek ci ma la alors. sama kër gi bu yaa ngi fi yeewoo muy dugg sa problème. alors yow taxaw di wax rek di assister sama lépp. nga may dugal lu ma xamul ne yow bàjjen bis bu ma la fajee mbéj riyaa laa ciy seet xaj. boobaa dootoo nga xam ne maa la dàq mbéj fuuf. yow réewoo da ngay réewantu rek dama lay dóor ba dee sa kaw yebaate bu bëgg a dee réew. doomu jàmbur ah naa moom jaaxle naa trop. man damaa xamul sax fu ñu ko man kay mooy sama problème instant yi est-ce que du ma jéem a naa kooku moom jóge na voyage xëy na moom mën na ma ci jàppale tamit jaaxle naa de dëgg fa fi ñu toll nii solution rek rek rek laa bëgg pour gis ko mënatuma nelaw damay tudd xaaju guddi mu mel ni dañ may yee tap tap tap jugal jugal jugal mënatuma nelaw sama xel bi toogatul. yow kii doon jógee wër yow da ngaa mënta jóg wuri kii xool ci lan la nekk dem ci hôpital yi dem ci police mor ko sax bu ko tayal ndax man fi ñu doon wax dëgg yàlla jaaxle naa ba fu jaaxle yam man naa dëkk man. kon xaaral ma jéem ko wër rek naa ko jéem a wëri su ma paree léegi. dem fële ci police xool ko ba xam lu ma fa jëlee su ma ñëwee ma wax la ndax nag jaaxle naa wax dëgg fa yàlla sama xel mi dalatul dara nag lii tamit. xew yow qu'est-ce que ça yow sa bàjjan kay lii moo tax fan yii yëpp may woo guddeeg bëccëg xamatuma lu may liggéey Réa la même chose daf may topp di ma fàtte tout temps te xam nañu man ak yow si loo nekk xam naa ko fàtte nañ ma ak ay appel ma ñëw fekkee la melokaan bii nii. coqi neen alhamdulilahi rabbil alamin coxi yàlla kese joxe ngeen jëf maa ngi la bëggoon a wóolu fan yëpp pour nga ñëw mënuma fexe ba nga ñëw faax nga dox ba egg si samay tànk coxi coxi bi ci guddi laa la sa xaar ma gisal la loo xam ne coxi bu dul woon ak man tey ji kenn waxatu ko yow ak sa yaay ak sa doom yi ak sa papa ngeen def accident bu metti coxi man maa góor-góorlu ba ngeen dundaat nii coxi kon sant ma coxi nga bàyyi sa ñëw xool li laay waxoon sa waxu dof yi yow kañ nga nekk sëriñ yéen ni ngeen di di tiñaande nit ñi rek yow kañ nga mel nii ak yow kañ nga nekk xaw ma sëriñ nga xaw ma loo doon te est-ce que xam nga dama la fi bàyyi léegi léegi dama la yóbbu nga ñibbi seen waa gàllay amerde nañ ma sonal nañ ma dama la yóbbu léegi léegi dama la fi bàyyi. cuxi ni ngay waxee ak man rek sama rawaane ñu ngi lay commencé dugg cuxi gis nga sa siritu baat yi ni muy def cuxi te paxe cuxi sa saxax il faut nga génne ko mënul yàq cuxi il faut nga génne ñaari saako nettatu cuxi ak paqarooni maaya coxi nga def ci poobar ak tuuti jimbo ok boo mënee jënd géej gi comme fumier bi tamit nga boole ko ci parce que dina la gën a tu eh jugal ñu dem Tu dinaa la def sama affaire yooyu te ko de du ma fi nekk di xëccante ak yow de du fi nekk di xeex ak yow maa fi du nekk di te maa ngi lay xamal lenn maa ngi dem mais mi gendarmerie dañ leen fekk léegi léegi naa leen xamal ni nag am na benn sëriñu triant bu fi nekk di triant de nit ñi lâche. Cuuxi ñooñu ngay wax ñëpp sumay taalibe lañ te bis bu ñu ñëwee dinaa leen sang ñu jébalu ci man ngay wax ay affaire aux gendarmerie tax man ma dama faale ñooy. baax na maa ngi dem ba ñu fekk la fi baax na. lu ko fi indi. hey Albacho. liggéey ci dëkk bi. lu ko fi indi. hey Albacho. Sénégal. El Pocho dëgër na fi. Sénégal fit ba daa dëgër. El Pocho dëgër na fi.